Reug Reug Sa Thiès. <laughs> waaw xaadim xaadim bisimilah. Sa Thiès bu pare wax amoo ci xam-xam. bu pare. waaw war ñëw jàkkaarloog Reug Reug bu pare <laughs> bu pare. waaw lan lañ mën a xaar. ci ci ni ngeen di préparé Reug Reug waaw di ñaanal sama doom Reug Reug mhm. yàlla defal ko jàmm mhm. ndax ñoom ñëpp samay doom la di ñaanal Sa Thiès yàlla defal ko jàmm parce que yow Balla Gaye sa xarit la waaw di ko ñaanal mhm. eh, sama doom bu baax muy Reug Reug ak Lirou Diane sa copain ak itam Diane ak xam nga di wax ni combat bi caaro yi gépp a koy préparé ak suñu mbokki séeréer yi ci ilu yeeg yëpp ñu ngi li waa caalaan ñu ngi leen ñaanal ñu jàppale seen doom Reug Reug ko doon jàppale. Mhm. combat bi daal sereen laa ci àndal ak xel mu daal quoi. Mhm. lu tax loolu kuy jàpp ah, jàpp la eh, tax lan moo tax Père Khadim. lu yem ni Sa Thiès ngay bëreeg moom ci xel mu daal. technique yi ngeen wax ci gars yëpp lu ko duubaleñ ci Reug tey bëri ci lamb ji yëpp bu ñu leen tegaloon benn tournoi. barke ah. salaatul fatiha te tey rédacteur leen ñoom ñëpp. waaw léegi dama dama dama lay laaj leen na. Seexul Xadim lan la rëdd am ci lamb saa Sa Thiès xam nga ko mooy lan. rëdd dafa mën ni mbapat te dem mooy wax Sa Thiès ban mbapat na toj. waaw déglu ma. déet yaa ngi ci làmb maa ngi ci làmb. seetaan naa ko 72 heures. waaw déet fan. Tadjé maa nga foon. waaw seetaan naa ko 72 heures waaw non daan na fa. waaw déet déet nee ma tuuru de. non daan na fa xam nga tey du. faram am na sama téléphone boo xamante ni su ma la ko indilee. waaw ah. naa la tegal archives civils yëpp woon la mbër bu ci nekk. waaw léegi xam nga tey jii. war wu ci mbër bu ci nekk tamit ci bëre simple yi. waaw waaw xam nga tey jii Sa Thiès. Sa Thiès xam nga tamit nit lépp lu métti métti rek. dañ koy waxal ay qualité am. qualité waaw hmm. mais dama ne Sa Thiès bi mu dugg see ci làmb mooy benn xale bu dugg ci biir làmb teg la ay dynamique de victoire daan ay mbërta bu seen ngemb nga baal ma dañuy waxtaan rek ci cadre waaw ci cadre làmb la ñuy waxtaan mm-hmm. léegi Reug bi mu gisee ci làmb léegi dañuy ci làmb wala ñoo xaar baagal dama yàggali per xaar a ñëw bi Reug Reug dugg see ci làmb bi Reug Reug dugg see ci làmb daa manœuvrer ay ponkal yoo xam kenn mënu leen a manœuvrer ci làmb daan leen jël yoo xam ne ba toog seen dënn non ci ci mboppat yi ba pare doog a dugg ci arène nangu naa ko waaw léegi dañuy waxtaan waaw yéen ñi toog fi yow yi muy yàgg a seetaan lam kenn mënu wax ni rek lii mooy point fort am lii mooy faible am. doon naa ko wax dëgg la. dañoo benn bu ko xam. dëgg la te Sa Thiès nag. fàtte nag. mais per xaadim per xaadim per am na affaire am na mënin. man sama adduna yëpp musuma liggéey. am na mënin mais amul mais kenn xamul faiblesse. waaw kay am na mënin am na foo xam ne fu fa rek àggee. Mm-hmm. Mm-hmm. lépp ci làmb laa ko def. waaye léegi loo ngeen jàpp ni rek amul faiblesse. amul faiblesse wax ko. rëg-rëg daf ma mës benn wax te loolu laa jàpp yàlla moo ma may ma nekk mbër mu mën a punkal ñaare bu bëreek ak maasam ak de même taille jëlal diggante combat rek rek ci yéen mooy mën a vrai bi rek rek nga jël biir trio rëg Francesco rëg-rëg ci entre Serigne Ndiaye ak Franc ci kan la ci ëpp ay ndam. wax ko waaw ci Serigne Ndiaye 2. Mm-hmm. ak ci franc yëpp. waaw non xaaral rek maanaam maanaam kum ci ëpp ay ndam. franc moom léegi la commencé daan biri rek. léegi. waaw rootee ko. déglu rek. rëg rëg. non Père Khadim fii di nga ko may dara. xoolal rëg rëg jongo jongole na. yéen moom yéen a ngi canaliser mais sama mbër mënoo leen ko canaliser. alhamdulilah rabbil alamin. d'accord mën naa laa wan fukki faay ak juróom-ñaar ci. d'accord léegi léegi léegi après nga ñëw ci faayu Sa Thiès. non non non maa ngi développé rëg-rëg. Upa uh-huh. jam na ponkali ni ci lamb. naa la yëgal lenn nangu lañu ko. lamb ji rëg-rëg bii lamb rëg bii. ci la lu hmm. mais am na loo xam ni. di ko gis nañ ko ci rëg gis ci faay mooy bu mën a bëre maanaam bu dalantee ak maasam. waaw bëri bi lëkk mën naa ñàkk. ci nan. wax ko ak bébé jën saan nañ ko fii quand loolu ñaata at la. xam nga xam nga loolu ñaata at la def. wuy ma wuy ma wuy ma wuy ma. man ñu waxtaan rek loolu ñaata at la def. man seetaan man seetaan naa. millions de francs. yow ku ñu jot wuy ma ca Kaolack. 9 eh, millions nag Nicolas. waaw defal naa wuy ma dañuy waxtaan. donc eh. wuy ma dañuy waxtaan. am na foo xam ne dama ne la wuy ma war na dégg loo. mais xam nga non du ma ko du ma ko may loolu dama ne la dama ne la. il faut nga nangu. Sa Thiès dama ne la avant ñuy dugg ci rek rek. ñëw ma Sa Thiès dama ne la dama ne la déedéet da nga daw action boobu. dama ne la Sa Thiès lan la def lan la pour nga def déedéet Pape Alé xam nga la laa mënul d'accord palmarès bi quoi déedéet déedéet Sa Thiès ni muy bëri ni muy bëri su ko bëri rek mbër mu amul hmm? faay hmm. amul Sa Thiès ni muy bëri barki salaatul faatiha faayu ko bëri rek prix bi ngay gis faayu faayu rek rek hmm. ñi xam làmb dañ koy gis ci làmb buy bëri am na faay am na ay qualité comme tout un chacun. loolu mooy fay amul fay bi du fës quoi. non non non waaw léegi atta may ma tuuti waaw léegi may la ma tuuti. ayca waaw ayca buuru ayca ayca buuru. yow Fadam. Fadam dafa am amour ci rek. Fadam non am amour de. am amour dama xam sama doom yar ko juddulu ko. nangu nañ ko waaye am na fay ci la. Ah, tamit waaw ah. d'accord léegi buur du tënk ci deux minutes. non non bal buur àggali foofu. ci deux minutes nga àggali foofu noonu. Père Khadim. waaw foo mu xam loolu. saa yu indee rëg rëg rëg toog ci ndam. Mhm. man keroog bi rek rek di bàkk ci jaaban ci cibukaay mooma laa njëkk xool xam ne rek rek tey lay am ndam muy contre guy gi mhm. mais bu ñu fàtte ni en lutte mhm. avec frappe mhm. rëg rëg xeexagu fi xeex bu exceptionnel ak adversaire ci làmb ba ñu mën ko juge. ñoo ko nëbbuloo. mais mais mais aussi. <laughs> waaw Yékini aussi. waaw ah. Yékini aussi. c'est pas la même chose. ban combat la mës a xeex. c'est pas la même chose c'est pas la même chose. bañ ne xeex na xeex bu métti. te jël roi des arènes tee ko presque ñaar bëre c'est pas la même chose day doo xeex ba jàpp boo ko am njool la. njool la kii ndaama la. dama bëgg kan mooy ndaama kan mooy ndaama. man xam naa Omar Kane. fan mooy naan Omar Kane bi muy bi muy. waaw dañuy waxtaan ku sut. non Reug Reug moo sut tuuti. Reug Reug moo sut tuuti ah, Reug Reug. <laughs> mais kon Reug Reug gàttul. mais taa Yékini ngay taa Yékini ngay ngay mesurer. Euh, Yves ok non. mais dama ni bëri bu àggale ak ak Amsa ñëw. ok waaw man mbër. su ma koy jugé dama koy jugé ci ñaari fan. qualité. rek rek mën naa wax ni que mu ngi mujjee bëre mbapat peut-être mbapat ba lig Nicolas tëggoon ca Mbour. Mhm. jour bi Balla Gaye 2 ak Bordeaux di def seen. signature contrat seen face ko live direct sur Sénégal. Mhm. Euh, ci la ñëpp gëm ne que rek rek turam jiitu na ko.

tànk bi jaaw non ci tànk combat bi jàll d'accord Khadim waaw waaw léegi li ma bëgg a pour mm-hmm. mm-hmm. ñu jeexalaale foofu géejuwaay moom après fa dem tëj géejuwaay moom daanaka Balla Gaye ñu fa dese ndax géejuwaay mm-hmm. ci njëkk am muy Elton lañ indi ñu teg ko de côté ñu dem indiwaat jox ñu ñu bàyyiwaat géejuwaay dem jox ñu giri deux ñu teg ko de côté waa géejuwaay meraat indi kan guy gi ñu teg ko de côté ci la Thiès ñoom mer ngem mais Sa suñu waxalee yàlla combat yi bëri yëpp. Mhm. ba ci moom Moussa Ndoye yëpp ay erreur la. même bu la daanee. même bu la daanee la laaj ma. ok combat mag njaago bi Zarko. Mhm. arbitre bi dina fëri Zarko war ngeen ko Iba Mar. waaw Zarko tukuloo bu fàttali dañuy dañuy a topp Sa Thiès de. man xool su ma lay topp dama lay topp ba teg la ci. ni ngay avancé di di xola di ba xam say baaraam muy fekk ci mbër mi yëpp dama la ci topp. moom fu muy waxee mooy Sa Thiès léeg koy yegg fu sori mu door bëri te nii muy bëri di attaque mhm. barki salaatul far bu ko defee rek rek bu yeboo ngeen xam ne lamb ji moom ñëpp dañuy teel a ñu. d'accord Fadam waaw. man bu fekkee per xaadim pare na. Mhm. na ma may ma wax loo xam ne nii na ko na ko nii ñëpp jàpp ba fi combat. effectivement mhm. dinañ defaat beneen plateau sax. balaa combat boobu dama dara. bul xool boo bëggee daan Sa Thiès bul xool ci faa yi Sa Thiès def si biir kii. Ah, def ah, ah. déglu ma rek déglu ma rek déglu ma déglu ma. Sa Thiès la daan indi ci làmb du ci teggi virgule bu ko yokkul ci diggante mu du bàyyi man nam ndax ñu ko daan ci mbappat ci gaawaay lañ ko daan déedéet ak manœuvre déedéet ama kenn manœuvre non non non d'accord léegi dañ ko bañuy bañ ci carax la fii nga koy nangu kan moo doon action. 9 millions. kan moo doon action. rek rek dafa ñëw ci juge yi contesté na daan nañu ko ci biir boobu daan nañu ko. Dijé attends il a des difficultés. naa leen yëgal leen di. maanaam bu amee bu amee mbër bu gaaw day am problème. Dijé waaw comme tey jii Père Khadim. waaw Père Khadim dama bëgg dama bëgg mu nangu ne. dama bëgg Père Khadim nangu ne. waaw may la qualité yi Reug Reug am. mën na ko ko qualité yi Reug Reug am. bu fekkee Mike Tyson. amoon na ay failles yoo xam ne nii yu bu mag ba ca boxeur ba nekk États-Unis hmm. amoon na ay failles yoo xam ne nii ay athlètes jaar nañ ko fa ba gagné ko hmm. kon waxuma la privé mi nga xam ne ni tey jii athlète la boo xam ne day doon carrière am mhm. Sa Thiès dafa am ay avantages yoo ci biir géew mhm. te amul takk ngeen bu ko mënta daan ci kaw suuf d'accord ñu jeexal ak xaadim foofu waaw foofu foofu nangu loolu xam nga damay da ngay nangu leen rek mhm. waaw <coughs> combat Balla Gaye Gris Bordeaux dem stade amitié Aziz Ndiaye dafa waat ne Moustapha Gueye sama grand la mais tey damay daan bërëm waat ci Cheikhou Tidiane fa la leen fekk mais pourquoi du ngeen ma nangul man sama sañ-sañ bi ma am ci sama doom. Mm-hmm. mu neex dañ ma koy nangul mu naqare dañ ma koy nangul te làmb jooju ci la loolu bari du nëbb di feeñ. Mm-hmm. muy la loolu. maanaam. non foofu laa yem junj yooyu na borom. d'accord <laughs> kontaan nañu. waaw njaga. ayca mais xam nga li wax. ban mm-hmm. koo koy nangul. waaw. ndax mënul ñàkk quoi mhm. parce que tey dafa ku ne xam ne daf féetoo ak Reug Reug mhm. mais boo dégloo ñaar ñi dañuy dañuy dañuy analyser làmb mhm. dañoo xaw far nag <laughs> fay ah, ah, fay ah. dañuy waxtaan dañuy waxtaan dañuy waxtaan ku wax feeñ ku wax feeñ ragal wax ragal féete day xañ non non demal nag rek ba léegi waxu leen faayu faayu xaadim man ay psychologie lay def man xam man xaadim dafa aay dafa aay d'accord kon ñu uh-huh. mu ngi wax ci benn niveau boo xam ne nii hmm. boo xamul lamb dëgg hmm. wala bu fekkee day dajanteeg beneen adversaire hmm. bi muy dajanteeg waa bi muy dajanteeg boobu la per Xaadim Njaay di waxee moo tax li ñuy wax ñoom da ko arrangé wu te gis nga combat bi bu taxawee barki Serigne Babacar bu taxawee ma wax ne bu ci ñëwaat d'accord alors Ndiaga ñu tàggatoo ngay a gis si kaw xeex bi ko boo bàyyee xeex bi rek doo bëre suuf. foofu mën nga faa jeexal la. d'accord lan ngay tàggatoo. waaw li may tàggatoo di am mbégte kontaan kontaante ci bokk ak ñi nga xamante ne làmb lañ di suñuy mag di suñuy kilifa ci làmb mhm. ah kontaan nañ ci plateau bi sa depuis boobu léegi ñu ngi jot ay message vraiment ndax làmb ah, dafay namm plateau bu ni mel ndax émission bi moom dafa nekk émission boo xamante ni mhm. àdduna moo koy bàyyi xel mhm. ku wedd rek jëlal heure bi ñuy def émission nga def ko sa émission xool ndax réew mi dinañ la seetaan waaw kontaan naa ci ñëpp du ñu suma yaay euh, maman Aïda si ñaa bu baax baax taalibi Serigne Babacar si boobu du euh, moo ma jël si woon man interview ma Euh, ci combat Balla Gaye Gris Bordeaux saa borom dogal combat bi demee noonu mhm. muy xalil maa ngi koy nuyu bu baax ak jaaram yi nga xamante ni moom lay àndal ci liggéey bi mhm. di nuyu tamit waa Géejawaay yëpp di nuyu suma goro Aram Mbay mhm. waa Malika maa ngi nuyu di leen jaajëfal di nuyu suñu waa kër yëpp am <laughs> eh. nga ko eh, boole woo daraa wax yaa ngi jàpp sa jàmm liggéey sponsor yi nag nañ ñëw waa ndax fii romb ko réccu la yéexati ñàkk la ndax mission guddi rek lépp loo a a waaye kontaan naa ci ñëpp daal. Habib Lekran mu ngi waaj a dugg. waaw Habib waaw Habib nekk na ñëw. ay ca buur. waaye yëpp xanaa rek euh, di la wax mention spéciale mhm. ko ci télé yombul. Mhm. Euh, di dellu di gërëm suba ma ñëwee sama xol dafay. ndeysaan dafay diis. Mhm. waaye di ko rek yàlla. amiin xaaral ko aljanna ak képp ñaan suba ba jiwu di gërëm nag samay soxna di ci jiital booy séeréer monsieur Diouf. Mhm. di ci dégg Jackson. Eh, waaye di ci dégg Diop Diobal. la mhm. troisième. cëm ah, ah waaw man man man bokkuma grand yi. yow kay bokkul yow Diagne waaw. doo bu Diagne man màggatum Diagne. macha allah macha allah di leen ñaanal ñoom ñëpp rek di ñaanal seen njaboot yàlla barkeel ko. amiin amiin di dellu rek di sant ak ñaanal. sama mhm. buntu ci Cheikhul Khadim. di Mawlana Cheikh Ibrahima Mbacke ñaama. di ko ñaanal sama borom sàmm ko doole. te kàttan ko ci dara ji islam di jaar réew mi yëpp bu wax ji jubee mhm. yàlla la faraluñu kenn contre mhm. kenn dañuy waxee xam-xam rek ci làmb rek ak lu ko yokk ak lu ko yaatal mhm. di la gërëm di jéegi di ñaan borom kër gi sama jaañ benn baas shahid bi di ñaan fu mu tëdd ca Yoff yàlla na ko yàlla xalaat amiin amiin ak képp ku mu fekk ak képp ko fekk te yàlla teg njabootam loxo di gërëm te ñu seen kaw maa leen di gërëm euh, mën mhm. Mhm. na bëri. moom macha allah kontaan nañu euh, Mass Ndiaye artiste chanteur ñu ngi koy nuyu borom.